Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di leen genre di leen ndokkeel di ñaan samay kàddu fekk leen si jàmm di nuyu sama président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal yàlla yan bi oyof ci barke Cheikhul Khadim di am mbégte ak contentement bu rëy démb bi nga xamante ni yàlla dogal na ci pexeem ak mananam manam ak kàttanam ma dagg sama yitte jóge ndindi dem ba njaga ñaaw seeti papaam yaakaar naa image yi ku ne gis na ko bi ma yeggee ma dugg ci saal bi papaam am kiimtaan gu rëy ci sama jëmm ji jëmm ji nga xamante ni yàlla suñu borom moo ko sàkk binduñu boole ma ak Bassirou Diomaye Diakhar fay président di Sénégal ñu nuroo nuroo goo xamante ni bi ma duggee ci saalu papaam papaam dane i eh, Bassirou kañ nga ñëw ma ne ko du Bassirou man la si la dëkk Ndindi même temps dëkk ba xale yi nga xamante ni fekk naa leen ci biir kër gi bi ma duggee rek am na benn xale doomu rakku Bassirou jomaay Faye la xaw ma magu doomu Bassirou Diomaye Faye dafa dagg fóot mi nga xamante ni da ko doon def ne ma papa kañ nga ñëw ma ne ko du papa man la Cheikh Sylla dama nuroo ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax di ci julli ci yonent bi di ñaanal suñu wayjur yi nga xamante ni moo ñu meññi di sëriñ Ibrahima Sylla Ndindi soxna Fan Ndiaye di am mbégte bu baax a baax a baax a baax ci fi ñu soqikoo nag di rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ni suñu président naal na ko muy Bassirou Diomaye Diakhar fay ñun nag Sonko la ñu xamoon yàlla nag mooy dogal mosuma taxaw ma ne dama nuroo ak Bassirou Diomaye Faye wallaahi rabbul kaaba ay nit dañuy dañuy ñàkk sago ci sama jëmm ji comme ni ma ko waxee woon démb ba mu jaaxal ma mën mii di wax ak yéen loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax di ci gërëm yonent bi di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak non man Basir dama fekkoon ma am motif di sol yére yi may sol dafa fekkoon man ni ma mel ku ñu dëkk suñu kër ak ki commune dindi yëpp xam na ne man sama am sama ñàkk lépp yére la dama bëgg sama bopp parce que dañ bala ngay bëgg kenn day fekk nga bëgg sa bopp te loolu dañ ko fekk ci suñu président waaye nag Bassirou da ko fekk ci man xëy na nag dañ lu dagg moroom ja fekk si. moo waral démb bi ma duggee moto laa yóbbu sax foofu noonu ma daj ci ay coono yu métti nag waaye Basiiru moom ma ko jaral wallaahi wa rabbul kaaba bi ma duggee ci saal bi papam dafa tiit dane Bachir la wax rakkam bi nga xamante ni moo bokk papa Bachir boo xoolee image yi ma ma vidéo bi mu ne mama Bachir papam moo ne du Bachir dañoo nuroo même kooku noonu bi ma nee yulub ci saal bi da dafa tiit nee na dane lu bu rëy moo jóge ci moom te du gaaw a dellu si mu nekk lu kiimtaanu yàlla goo xamante ni man sax damaa jaaxal parce que fu ma dem ci àdduna wallahi nit day dawe nit dawal na kaat kaatam ba ci sama kanam ne may lan nga bokk ak Bachir ma ne ko Adama ak Awa mu waat ci Cheikhul Khadim ne ma bokk leen Adama ak Awa am na fu leen bokkee waa ji ba tey nii kumpa googu mi ngi ci moom waaye nag yàlla moo bind yàlla lu mu mënul amul non bi ma yeggee yéeg yëg bu foor la am ci moom yëg te yëg-yëgu jullit ak moroomum jullitam papa ji wan ma mbégte ak contentement. ma fekk nag paa paa boo xamante ni motivé na njabootam ci diine ak lislaam yar bi ngeen di gis yi Bassirou Diomaye Faye papaam moo ko gën a yaru parce que su yaruwutoon am na nu mu dundee ak man wala nu muy nu muy kii waaye wanewut loolu ni ma ko fekkee mu tooge noonu noonu la ma tatagalee wax dëgg yàlla ñu nekk ku xam teraanga moom ci jëmmi boppam bëggutoon ma ñibbi si démb papay Bassirou Diomaye Diakhar Faye dane ma woon yendul ak man te man xam naa ne su ma yendoon mu ne ma fanaanal mais nag dama bàyyi mag muy sama papa. non man nag bi may dem loolu ci sama vidéo bi may def tournage euh, di remercier ñi nga xamante ni à travers di Ndindi dañ ñëw voteloon ci élection yi bu ma demee spécimen yi ma doon yor nit ñi bu ma leen ko joxee dañuy jàpp ne man maa taxaw di di di présenté wu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu nekkoon lu yéeme. ñu dund ay coono nag ci ci kii bi parce que ci koor la tombeeloon dañu doon jaral suñu mburu yi ñu doon lekk ci biir oto yi lañ ko doon lekk am na benn dëkk boo xam trois jours dañ fay dem di paan benn bi biñ fay biñ fay jógee dañoo mujj def accident boo xam ne mbaam la ñu mbëkk loolu nag mënoon naa jur leneen waaye yàlla ci ak ndimbalam ak mbaaxam ak entourage bi ñu àndaloon ay nit ñu baax lan yàlla suñu borom dimbale ñu ban génn ci loolu papaam nag ban yeggee wax dëgg yàlla cofeel gu rëy la la la jéenteeg man man waxuma ko jox ma sa numéro de wallaahi rabbul kaaba moo ne ma jëlal sama numéro di ma woo parce que am naa cofeel gu ma yéem ci yow bi ñu jógee noonu en même temps ñu dem ba ci kaw tali bi far ñu paan échange bi ma demee ba rakku Basiiru jomaa Jaaxaar Fay bu jigéen ma romb ko ci boutique bi bi moto bi ne wif rek wallaahi dafa daw génn Xadi Juuf la Xadi Fay la tudd bi mu dawee génn mu woo ma ma insisté mu woo ma mu ne ma ñëwal mu ne ma kaay ma ne mu ne ma yow est-ce que xam nga ki nga nuróol fekk maa ngi yor li nga xamante ne papa Bassirou Diomaye Diakhar fay moo ma ko jox. Ah, moo ma may lii te lii xaalis lay jar xam nga ne yombul projet bi moom wax dëgg yàlla dañoo jaral suñu bakkan mu jël ko jox ma ko ci ma ak mbaaxam. bi mu ne maa yow foo jógee ma ne ko man de sama papa laa seeti woon Bassirou papay Bassirou Diomaye Diakhar fay ndeysaan mu daan ne ma nii rek la mën a demee da nga suñu mag ji. daal di jël contact am jox ma ne ma incha allah dinaa def tout pour nga gisee ak Bassirou Diomaye Diakhar fay ma ne ko nag man mënoon na maa def ay pexe ak i ay njuuj ak i ba gis président mais nag alors que may def loolu naa ñëw ba gis suñu papa ji nga xamante ni moo jur le président le maire du ki nga xamante ni nag moo jaral ndaw ñi lépp jaral ma man mi sama bakkan bi bu rotoon tey te Bassirou Diomaye fay Diakhar fay mi ñu dégg nekk président di Sénégal defar ko dama koo jaral man. man lépp loo xamante ne wuruj la ak i fen maa ngi nii damay xëy ci tool yi damay lu lu ne loo xalaat ne maanaam du ne tànk bi fii la jaaroon lii la defoon man maa nga ca parce que doomi gor laa ñaari gor su sukk jur su ma deful loolu damay weddi